yàlla sunu boroom mooy tànn ci ay jaamam dénk leen xam-xam dénk leen baatin yow mi nga xam ne soxla nga ñaan yow mi bëgg li xaar pour xam lan mooy sa sarax dawal seeti sëñ Moustapha Dieng Kamal nekk nit ku yàlla baaxal dénk ko xam-xam bu set muy jàppale nit ñi di leen ñaanal ci alxuraan fu nit tàddee rek cata la sonal moo tax sëñ Moustapha Dieng Kamal di liggéey ay jaaru ci baatin muy dindi cat dindi lépp loo xam ne gàllankoor ci àdduna doomu aadama yaa ngi bëggante bëgg sëy seen biir waaye rab ak seytaane sonal leen moo tax sëñ Moustapha Dieng Kamal defal ay cuuraay yu ñu ñaan muy dindi faru rab ak coru rab cuuraay yi am na beneen catégorie tamit buy xëcc lépp loo xam ne bayra la ak yokkute ci fi ngay jaaye wala sa place sëñ Moustapha Dieng Kamal yemul foofu ci xam-xam bi ko yàlla may macha allah muy joxe ay sunguf yu est defaree à base des éléments de la nature amul benn effet secondaire muy yokk kattan ak cawarte góor surtout ci sëy yow mi am chance tombé ci vidéo bi dawal woo sëñ Moustapha Dieng Kamal mën nga ko jot ci 77 161 50 80 wala nga jot ko ci 76 575 60 55.